jaajëf euh, jaajëf Grand Lamine jërë ngeen jëf Yacine Pouy jaa ngeen jëf internet yeeg auditeurs yi déglu RFM euh, yëpp yëpp ñu ngi leen di kontaane bu baax euh, ñëwaat leen ci seen journal des faits divers xalaas ñu ànd ci ñun ñi ci daan ànd rek ah Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax. jërëjëf Awa kenn absenté wul. ah maa ngi lay delloo ziar gi bu baax. nelu mhm. nag di nuyu auditeurs yi. di leen sant bu baax a baax. nuyu également passe partout. Mhm. maa ngi gërëm également partenaires yi nga xam ne ñoo ñuy àndal ci xalaas. Mhm. boobee ba léegi rek euh, sénégalais di leen gërëm bokk ci ñoom Optique Vision Plus Sénégal mi ci lunettes yu baax yi te garantie accessible partout et pour tous mais également établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère ñi indi gamme vite fait indi savon king aloe vera wala anti acné indi également crème épilatoire vite fait frotté vite fait lépp ci gamme bi beneen partenaire ci xalaas moo di Mion mi ci téléphone yu garaaw yi te baax garantie te wóor accessible partout. am Android am téléphone simple am tablette mu yoon garantie douze mois di un an ak service après-vente bu leen di lijjanti lu leen jaaxal ci euh, téléphone bi euh, Touba Darou Salam distribution yi indi parfum de chambre yu neex yi nga xam ne euh, kër yi fi mu nekk nii boo fa duggee jàmm rek nga fay dégg ba keroog ngay génn Dolka moo ko waral bari nag ci ay parfum yu mu indi Dolka ni ma koy waxee. di parfum de chambre boo xamante ne ji ñu bëri li ñuy wax mooy yeex naa ñëw mu ñëwaat nag ci beneen anam ñoom it di partenaire ci xalaas ñu ngi di remercier bu baax a baax. Mhm. noo def. leçon sant yàlla bu baax élèves la mooy élèves yaa daan am ay diplôme d'honneur. Ah, élèves yooyu tableau d'honneur ah, waaw waaw waaw. maa ngi lay ziar bu baax a baax. cool ci loo nekk. maa ngi lay nuyu baax di nuyu Ndiaye di nuyu auditeur yeeg internet di ziar ñëpp ñëpp ñuy dégg ci waxtu ñu leen di ziar. waaye lépp a ngi dox. waaw mi ngi cool. wax nga wax nga élève sama xel dem ci suñu rakk yeeg suñu jarbaat yi def mm. bac tey mm. Eh, yal na leen sunu borom may li ñuy wut. amiin yaa rabbi mais également mu gën ci ñoom. amiin yaa rabbi yaa rabbi. yal na leen sunu borom may li ñuy wut mu gën ci ñoom. amiin yaa rabbi. fam sama benn rakk bon rakk bu jigéen ma wax kere wax bu am solo dane ma. Hmm. jàng yàggul ñàkk jàng yàgg. waaw. jàng yàggul ñàkk jàng moo yàgg. boo jàngul da ngay redoubler rek mën nga faa yàgg lool jàngul xamoo dara dim naxa naxa mais boo jàngee day neex ci lu ne di nga ci dugg génn pour mën a tekki dëgg la jàng nag waxuma français waxuma arabe waxuma mm-hmm. alxuraan wax jàng jàng jàng muy jàng métier mm-hmm. dem daara muy dem école mm-hmm. loolu yàggul a jàng moo yàgg dëgg la de booy neex ci da nga koy bëgg jàng àdduna passion lay nekk ci yow te looy dund rek mu neex la loolu du yàgg du yàgg du metti waaye njaay sama bis ba ma yeewoo naan maa ngi defee examen defem <laughs> la woon de léeg-léeg euh. maa mel ni woon comme kuy guéri de man boobu pression man gis naa ko am sama àdduna pression boobu moo tax loo bëggul <laughs> te maa ngi nii tey di mat paa bu toll ni man ngay demaat ci école yi. jàngoon à temps waaw ah, jàngoon à temps. mooy jàng yàggul yàgg. jàngoon à temps yëpp dina ci fekk na booy yu góorgóorlu ci école génn ak seen i diplôme dem defi formation yàlla wërsëgale leen ñu liggéey. liggéey nag nekkul ne da ngay toog rek wékku ci état bi na ma jox lii nañ ma def lii nañ ma embauché déedéet bari na fi ñoo xamante ne ji li ñuy am. Mhm. ci seen ci seen liggéey bopp bu ñu sos. bu mhm. leen embauché woon duñ ko am. tigi mhm. xamante ne ji tey ñoom ñoo ko sos taxawal ko muy metti ñuy jug ak daanu muy compliqué ñu di ko muñ ba tey ji yàlla defal leen ci teranga bu ñu nekkoon fii nii ñu leen di embauché xëy huit heures wàcc dix huit heures. duñ ko am. dégg naa dëgg. mais dafa am lu benn booy buy way di wax. Mm-hmm. ne luy naaw moo neex a sànni. Mm-hmm. loolu ku ne danga ko war a dégg fu ne. Ah, luy naaw a neex a sànni. lu taax ba mbaay. waaw luy naaw moo neex a sànni. loolu ku ne danga fu ne. moo dëgg Grand ah. moom xaw ma fu mu ci dëkk daay. Moustapha Mbaye bàyyam. mooy rek Mouma Mbaye wala moom. Moussa Tarba mi euh, kii am na ku ne. <laughs> dama xam damay laaj mooy bàyyam kii. ah Moussa menn bi. Ah, waaw Moustapha Mbaye waaw waaw. Alaaji Moustapha Mbaye sax ñëwoon na su suñ kër jour tabaski. na yàlla guddal fanam ku la ci am yitte ku baax la ci am yitte mm. yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér Alaaji Moustapha Mbaye. dafa mel ni su ma juumul Cheikh Anta. waaw ayca ana ñëwaat ci ah. ayca ayca. Cheikh Anta. Mm-hmm. wala ñëwagul. déedéet rek seegul. waaw Ndiaye Lamine nag mooy processus de sabotage dëgg nag la. <laughs> indi indi ba pare yóbbuwaat. ñàkk a nelaw yi nga ñàkk a nelaw fii. waa lijjantil ma Cheikh Anta ndax dafa am lu doy waar lu xew kees. waaw. yaa ngi mel ni aéroport de da ñëw ba yegg say bagage du ñëw. Hmm? Ah, am na fa am na aéroport Air France. Air France laa ñëwee ñëw ba yegg si samay bagages egg si wul. fan fan la say bagages yéexee egg si laa wax. Ah, fii ci aéroport bi. ah AIBD. AIBD ah, waaw mais Air France laa jël. ok bëgg mu leer rek. ok ok. waaw fan jëm. Mhm. Ndiaye maa ngi lay wax li tax ñu waroon a dem Kees. ci Cheikh Anta. Mhm. dafa mbir mu doy waar mu fam boobu ba léegi moom la ñuy waxtaanee non seulement ci Thiès mais ci Sénégal gi yëpp. dafa am mhm. benn xale bu jigéen boo xam ne. Mhm. ci information yi ñu mujjee am. Mhm. xale bu jigéen dafa am benn xaritam. benn copine am copine bi am benn copain benn gaañ bu muy génnal. booy bi jaar ci suuf moom it di génn ak moom. ci liñ ci liñ wax. ah di ko suufu. ba waa ji ëmbal ko. mu wasin nee na gàcce gi ak kersa gi tax na mënutoon a tëye doom ji. mu faat ko ci anam bu compliqué. Ah, dem sànni ko ci benn batiment bu yeggul malheureusement jàpp nañu ko li ma jaaxal nag mooy ñoom kii def loolu nee nañu am na trente ans. Mhm. je pense que nag nit ku am fanweeri at moom war naa mën a xam-xàmmee. wax dëgg donc euh, xool yi Cheikh Anta ay ca kon Cheikh yegg si na allo Cheikh. waaw euh, sëñ Mouhamed Ndiaye. sama waa ji noo def fooy. waaye maa ngi nii rek di sant. foo toll sew xaay gëdd mbëtt wala ba dëkk comme yow da ngay xëy di dox dëkk Thiès rek kii. Cheikh comme non non non démb rek maa ngi nekkoon Pekes benn dëkk bu ñuy naan Ndiop Basel. Ndiop Basel dëkk la dëkk boo xamante ne foofu lañ daan euh, buy Lat Joor daan dem foofu lañ ko daan bootale. Lat Joor Diop. waaw Lat hmm, mooy sama. waaw dëkk boobu laa demoon. fan nga demoon ba gars yi doon manifester gis la bàyyi manifester di di di di fan la Ndiop nan. ah foofu euh, ci la euh, Kokki Diop. Kokki Diop merci beaucoup. waaw ci ginnaaw Pekes la. wax nga dëgg Cheikh dafa am mbir bu doy waar boo xam ne dañ koo dégg ci yow mu xew foofu ca Thiès di benn xale bu mhm. jigéen bu am doom daal di koy faat ci anam bu compliqué ba jàpp nañu ko fu yëf yi toll. waaw muy euh, Fatou ñas la tudd 1992 la la la la judd. mi ngi dëkk nag quartier bu ñuy wax Darou Salaam nekk fii ci Thiès ci commune bu Est. Mhm. Euh, xale bi nag moom euh, ginnaaw bi mu euh, buñ dañ ne diñ ko ëmbal biñ ko ëmbalee nag si la am doom bi mu amee doom nag la jël doom ji nag xoj ko ba doom ji faatu mu def ko ci benn mbuus dem sànni ko ci ab tabax bu yàqu bi nga xamante ne nag waa police premier arrondissement te commissaire bi nga xamante ne jiite ko muy cubb bi ñu defee enquête daal dañoo gis ne moom daal li mu wax nee na dafa am benn faram boo boo xamante ne ki ki ki ko ëmbal benn xaritam la doon génnal léegi nag comme que daf koo ëmbal te xaritam boobu ñoo ay ñoom ñoo bokk daak daanaka lépp ngir maanaam euh, bañ a yàq seen diggante moo tax daal bi mu ëmbee ba jur xale bi mu mën a mu faat doom ji ngir nag seen diggante bañ a yàqu moom daal loolu la expliqué enquêteurs yi waaye nag ba léegi ñu ngi wéyal euh, maanaam enquete bi ndaxte xale bi sax booy xool li nga xamante li tax sax ñu jàpp ko ndaxte dafa am bi mu nekkee euh, jigéen ju wéroon ndaxte am na ay bàjjenu gox yu nekkoon ci biir quartier bi doon ko xool xam nga bàjjenu gox yi souvent ñi nga xamante ne dañoo ëmb nekk euh, jigéen ju wérul dañ leen di encadré ak yooyu di leen mhm. sensibiliser pour ñu dem di def ay CPN mhm. ci lañ euh, xamee nag xale bi dañoo jékki-jékki rek comme dafa ëmboon jékki-jékki gisatuñ ko ak biir ndekete am na ñenn ñoo xamante ne gis nañu ko ci ci naaj wu tàng wi mu jël mbuus mi bay dugg ci biir tabax am na ñu ko repéré nag ba gis ko bi ñu mbir mi amee nag si nag ñenn daal di signalé police ci la waa police premier arrondissement commissaire Thioub ànd ak ay ñooñam dem bi ñu defee enquête bi daal ci lañ ko jàpp moom nag abu na bi ñu ko enquêté nee na moom moo ko def te li tax mu def ko nag loolu la ndaxte comme ko xaritam bi mu doon àndal mu nekk xaritu benn bakkanam far wi nag ëmbal ko léegi nag pour dissimuler loolu pour daal seen diggante bañ a yàqu moo tax daal mu fàtt tu tànk gi mu nekk mbir moo xaw a doy waar doom ji góor la woon wala jigéen waaw doom bi jigéen la jigéen la booy gisee sax xam naa ne image yi moom yor naa ko sax xëy naa dinaa la ko envoyé waaye nekk dinaa la ko envoyé. bu soobee Cheikh man li nga ñeme ñeme wu ma ko de. li nga ñeme ñeme wu ma ko tout tout tànk bu rafet la et puis bien xale bi vraiment dafa dafa euh, ñëw ak taay. baal nañ la explication bu xaw doy waar. mais daal vraiment quartier boobu nga xam ne mooy euh, quartier Daaru Salaam. li fay mm-hmm. xew doy na waar xam nga mm-hmm. yaa ngi fàttaliku. tout tànk boobu ñu euh, benn waaye jàppoon doon ko bëgg a rend muy Mohamed. Mm-hmm. ci quartier boobu la dëkk muy Daaru Salaam. léegi luy luy problème mu quartier boobu ba tax ñu fay. dégg waaw non quartier boobu problème mu euh, quartier populaire la mhm. problème mu insécurité yi ensuite. quartier la boo xamante ni pratiquement jaaykatu Sénégal yeeg drogue ñëpp fa lañ dëkk fa lañ nekk chaque fois police daf fay def ay descente commissaire ci bu moom mi ngi fay def liggéey bu am solo ndax ay élément saa yu nekk ñu ngi dugg foofu di. jàpp ñi nga xamante ne ay euh, def ko ci ñaawteef lañ ak euh, euh, jigéen ñi nga xamante ne daal lu lu xaw a doy la foofu. mais Cheikh yow xëy na peut-être miin nga miin nga kees. keroog mhm. waa police bi ñuy bi ñuy def seen ay bilan yooyu dañu ne li ñu jàpp ci yàmba li ci ëpp ñu ngi ko jàppee kees. voilà lu ñu mën a expliquer loolu. waaw xam nga aussi Thiès aussi kii la genre Carrefour la parce que bu fekkee ne dañ na Thiès c'est pas uniquement commune Thiès mais nag bu na Thiès région Thiès. xam nga dafa ëmb maanaam département bu Mbour ak département bu Thiès. Mhm. xam nga département bu Mbour par rapport ak géej gi ak il il yeeg yooyu. Mhm. ñu bëri nag dañuy jëlee cérébre bi ay Gambie di ko teerali ci géej yeeg yooyu en même temps ci géeju yeneen géej fu mel ni Mboor fu mel ni Kayar aussi yooyu yëpp aussi dañ fay débarquer seen cérébre boobu. te gis nañ ne aussi ci biir Thiès daañu ne xañ na le chômage est trop croissant xale yi dafa ñu dara ñu ngi ci jakartaay ñu ngi ci jaay café Touba. am na ci booy yu bëri yoo xamante ne des fois leen di dugg ci yenn quartier sax fekk ñu toog ci taatu garab di di di seen euh, maanaam euh, ñaaxoñ yooyu mu nekk loo xamante ne vraiment doy wàll ba tax na mu ne police à chaque fois muy waa police centrale ay premier premier arrondissement ak euh, police bu ngent bi aussi ñoom saa yu nekk yaa ngi leen di gis ñuy dugg ci quartier yi am na benn jour sax ay bëccëgu ndar ah de 14 heures la waa police ngent bi dugg ci benn quartier bu naan ngent extension foofu jàpp nañ fa ay xale yu bëri yoo xamante ne dañ doon maanaam jëfandikoo Sénégal boobu. kon nag mu nekk phénomène bu doy waar fi ci mm-hmm. biir Thiès. drogue mm-hmm. bi ak vraiment quartier yi nga xamante ni quartier populaire yu mel ni Daaru Salaam xale yi nañ fa nekkee di utiliser maanaam drogue beeg yooyu loolu daal autorité yi war nañ cee jóg te defe naa ne police mi ngi ciy def liggéey bu am solo particulièrement commissaire Thioub bi nga xamante ne moom moo nekk premier arrondissement ñi mu fa daaneel bari na lool. ak euh, aussi euh, fi nga xam ne mooy euh, commissaire bi nekk police su Ngent aussi am na ci liggéey bu am solo ak police centrale bu Thiès. jërëjëf Cheikh Anta ci leeral yi maa ngi lay gërëm bu baax a baax. jërëjëf ñu bàyyi la nga daal dellu ci waar jërëjëf ci leeral yooyu nga ñu indil jëm ci loolu xalaas boobu xewoon ca Thiès bu ñu xalaas nag moo di xew xewu jamono mi ngi noonu feneen fu ñuy dem. nitu Thiès ah, loolu du ma sori. non mais dafa dafa doy waar. Mm. Ndiaye gis nga def nañ njuumte lu rëy. Mhm. te sama ci li li ma li ma ci xalaat mooy. Mhm. bu ci keneen dugg gis euh, ay mënul weesu bàyyi dee na. Mhm. def nga li ngay def doom juddu na ci. assumer ko. parce que non seulement yàq na relation diggam ak xarit bi mu doon bañ mu yàq parce que li mu doon nëbbu feeñ na. yàq na àddunaam parce que li leer ba leer mooy dañu koy tëj. te nag xaritu benn bàkkanam nee na femme bi moom la woon. mais benn bakkan mënut a weesu ki jugee sa doom ji nga jur. mooy moo gën a nekk sa xaritu benn bakkan. kon kay yow bu fekkee am na koy sauver ci diggante bi sauver sa doom. sa doom. Mhm. mais li lépp nag li ko waral mooy nit day nekk ci coono du gis kum ko wax parce que amaana bu ci teeloon a wax ki nit. lii mu bëgg a def nii danañ ko dissuader. Mhm. beneen laaj bi mooy. Mhm. moom kese jurul doom ji. peut-être xëy na ku góor ki yëgul woon ne da koy faat. xëy na peut yëg na ko mais laaj bi mooy lu ciy doon responsabilité ku góor ki. parce que buñ dee tëj moom la ñuy tëj buñ dee jàpp ndaw si la ñuy jàpp buñ dee ngawta ngawtee moom la ñuy turam sax xam nga ko te fi ne xamoo turu waa ji ko ëmbal mhm. moo ci responsabilité boo demee ci kaso réew mi ñuy tëj jigéen bu dul coup et mhm. du infanticide mhm. mbirum dorog la mais infanticide li leen fay tëral bari na lool te ñoom kese juruñu doom yi aussi Fane Ndiaye moo li ñu wax fii rek jigéen ju ëmb ko ko ëmbal gëree lay doon moom mooy nekk victime bi te moom ak moom donc mu amul waxam malheureusement suñu société moo tëddee noonu. yéeme na de ñu doxal. Ndiaye en tout cas ñi amul doom. yàlla na yàlla may leen ñu am doom. amiin Ndiaye doom amul beneen plaisir. Ndiaye wax ko ci kaw. plaisir doom amul beneen plaisir bu mel noonu ñi amul doom yàlla na leen yàlla may doom ñi am doom yàlla na yàlla may leen xol bu ñu téye seen doom. ak ak ak ak ak doole poos bu ñu ko yoree. te ay coow Sénégal fii soxlawul ngay def naka su dul noonu lu coow li bari bari boo mënee assister wala nga mën a encaisser vingt quatre heures yi njaay la ci des. dañ koy seet billaahi soxlawul rey sa bopp soxlawul dara coowal Sénégal fii bu ñu paree ci yow ñu ngi le temps ñu nekk ci yow ñu xool keneen ku ñu kaawal donc yow mën nga koo vingt quatre heures la du yàgg moo tax njaay man lu neex mu ciy dugg vingt quatre heures la yàggul. Euh, balaa douze heures yi mën naa ko nelaw man bu ma defee coow balaa ñu yeggale ma nelaw bu ma yeewoo fekk ñu nekk ci keneen. abaa abaa loolu. Sénégal la de mais eggu ci cadre ëmb ëmb la wasin de Sénégal bu ñu ëmbalee jigéen ci ëmb ba nañ koy coow fàtte ko neuf mois mu dee ba wasin coow lu ñëwaat bu doom ji juddoo saa yu defee erreur ñu fàttaliku nu mu juddoo woon su dee ba tekki ñu fàttaliku nu mu juddoo woon da koy topp de. ku lay fàttali sa juddu moom ndax xam na juddoo. waaye nit dañuy fàttalante sax lépp lañuy ñuy fàttalante. ñu joxe lekk ak naan ci biir kër gi sax yenn saa yi ñu fàttali ko ni ñun lekk guñu te mooy joxe lekk ak naan lépp lañ lay fàttali yooyu yooyu garaawul. ayca Ndiaye. waaw démb woon ci Malick Dia Malick Dia mooy ki ñu doon wax naan ay rebelle ñoo ko fat waaw ak balu fetal ci boori Mali. waaw am na ku koo xam te nag moom jaaroon na ci ay loxoom ba kooku indi na ay leeral fan la Malick Dia dëkk. ah Malick moom xam na Malick. waaw jaaroon na ca moom ca Zouérate pour jël yoonu suuf moom xawoon na ko tere sax wax na ba sonn pour Malick bañ dem. Hmm. nekkoon na foofu pendant parce que ay quelques jours pour liggéey fa am wécc doog koon ne dem ba moom jot na jël quarantaine ba xam na ay information ci moom. moom waa ji di wax. waaw ñu déglu déglu. waaw Malick Dia moomu de man maa ngi fii di ko dégg waaye Malick Dia moomu man mii xam naa ne mat na un mois et quelque mën naa ko héberger woon Zouérate ci Mauritanie bon fa la jógee woon di topp àll boobu désert boobu Algérie wax dëgg yàlla tere naa ko ba tàyyi de parce que booy bi gis naa ko waaye xam naa ne yeewul yeewu gu waaw tere nañ ko ba tàyyi ne ko àll bi wóorul fa la euh, Nouadhibou la la jógee woon parce que Mauritanie la jaare Nouadhibou la jógee woon nekk fa liggéey nekk fa mu dëgër mu ñëw Zouérate nekk la Nouadhibou ñoom dañoo xaalis jàll moom nag dafa ñëw liggéey na fa lu mat de un mois wala lu ko jege bi mu amee dara euh, la xëy ne moom a ngi dem waaye daal booy boobu moom wax dëgg yàlla comme ni ko waa ji euh, noonu la rek Malick Diallo tudd Géejawaay la dëkk xam nga foofu nit ñi dañ fay jaar dëkk bu ñaan dañ fay jaar dem dëkk bu ñaan biir Mogren ci Mauritanie foofu la ñuy jaar dugg Algérie bon man Malick boobu comme ni ko waa ji décrire moom la rek Malick Diallo parce que euh, moom Nouadhibou la jóge woon ñëw fa bi mu ñëwee mu a dafa sonne Nouadhibou gaayam àndaloon ay Gambien ànduñoon sax mais ñooñu ko jiitoon mais ñooñu moom comme que dañu yor xaalis rek dañoo ñëw daal di jaar yàlla moom mu ñëw Nouadhibou toog na foofu ziaraat liggéey na fa lu mat ay du jege un mois ba le vingt ba le du bii de le vingt ba le mu xëy na ma mi ngi dem mi ngi jaar biir dem dem Algérie bon wax dëgg yebbi yebbi nañ ko ba tàyyi parce que booy bi soo ko gisee rek da xam ne kii mënta dem après man bi fa nekkee ma gis nelaw yi muy nelaw moo mën ko yoon sa carte d'identité xool ko mu joxe carte d'identité ma gis mu dëtt Malick Dia dëkk géejawaay mais turu papa yeeg yooyu moom wax dëgg yàlla fàtte naa ko mais géejawaay la dëkk après laa ko laaj mënoo géejawaay laa dëkk ginnaaw bi la fa ay gambien ñëw muy làkk muy làkk mu yi dem nañ a a doog a dem mais booy bi moom wax dëgg yàlla soo gisee rek euh, comme ni ko waa ji muy ku xeereer nii njool karaw gi gudd parce que foofu Sénégal yu bari dañuy ñëw foofu jaar fa dugg Algérie leer na jaay mhm. léegi nag ay mbokkam mhm. bu fekkente ne xam nañu ko mhm. nañu xam ne yàlla def na seen doom ji fii la mujj fu jëm même situation nekk dañ jaay ñi ñi ñi dee ci àll bi te yëguñu leen bari nañ de hmm? waaw daam keneen ku deewaat ñeneen ki tam daa ki daa am ñu mu àndaloon. ñoo xam te ne sénégalais moo leen jaay. ci libi ñoom it noonu. Hmm? jaay. moom ba mu ba mu ba mu déggee ba mu déggee affaire bi démb ci la yëglu moom tamit ak ñi mu àndaloon moom ànd na woon lu ma toll juróomi nit. ana ñooñu. ñett ñi moom leer na ko ne faatu nañ. dañ leen a faat. waaw gars yi dañ leen di jaay ci ci ndox meeg ñii ci kaso libi yi. ñu déglu déglu. ñoom 2019 laa xamante ak ñoom. ñu bëri côté Kolda bi leen dëkk ñaar yi moom xam naa seen dëkk wax nañ ma seen dëkk ñoom Saare Saare Kédian lañ wax côté Kolda Saare Kédian maa leen mais nit yeneen ñett yi moom ñoom franchement dañuy nee ne Kolda lañ dëkk mais xaw ma exact fan ci quoi ma ci biir Kolda wala ci euh, village Kolda yi la maa ñoom ñoo bokkoon benn convoi depuis Agadez ba Saba Libi ba Tripoli ba ñu dem si géej bi mooy Zabrata mooy benn këksër moo yoroon kooku muy dëkk côté Vélingara man xam naa ba seen dëkk mais village bi laa fàtte mu ngi tudd Boubacar kooku moo ñu boole woon ak benn naar mu dugal ñu ci benn frigo frigo bu amul aération presque def nañ fa bi six heures ba dix-sept heures léegi waaj xool ñëf ñu nekkoon ci oto bi parce que ñëpp xamoon waa ji ñoo génnee ñu yóbbu ñu si benn jardin man bokk mun ma wax ñoom mais man la ma jékki-jékki ki sama bopp si benn jardin xaw ma si nelaw laa nekkoon xaw ma si xam laa jóge xaw ma si lan mun ma fexe ba comprendre jóge si xam boobu ñële gisatuma leen man moom gis naa sama bopp si biir jardin mais ñële gisatuma leen dëggatuma leen léegi man après ci laa dellu mooy Zabrata muy fu ñu war jël gaal yi pour dem Italie Zabrata xam naa ñu dem lébi ñu bëri xam nañ foofu Zabrata léegi ma def Zabrata trois mois ñële gisuma leen keneen ki Abbas la tudd keneen ki Ablaye Seydi keneen ki Omar Diaw mais yeneen ñaari moom xamul seen tur mais trois yi moom xam naa seen tur Ablaye Seydi maa kooku ñoo nekkoon presque xarit yaa comprendre def naa dabrata trois mois dégguma seen biir de man ma feebar foofu noonu feebar naa fa presque def naa fa deux semaines xiif moo ma jàppoon feebar dafa mel ni ñun suñu réew bi amatul yoon affaire bi ma tëddee ba tey day mel ni tey la am muy noonu sama kanam jaay ay doom jàmbur rey ay doom jàmbur ay sénégalais rey leen foofu yow sénégalais ki après nga jóge foofu ñëw fii ngay dund wellement mel ni defoo dara mel ni dara mus laa mel ni musoo def kenn dara lu bon fekk nga rek nga rey say mbokk sénégalais nga ñëw nekk fii lèvement di dund sa dund dund ak say njaboot rey ay doom jàmbur ci àll bi affaire bi tellement que daf ma sokkee ba tey ni bu ma souvent bu ma tëddee xalaat affaire day mel ni tey tey tey tey tey lay ñëw sama xel tey laa déglu sax xalaat bi mooy gaan bu doon wax ni dañoo romb tum Tumbuktu ba Robéli tiré seen beneen sénégalais yi mu décédé ñoom Robéli ñoo ko tiré mais ñun sénégalais ci boppam ñoo bokk benn réew mi moo ñoree dama dama la il faut ma expliquer moo ñoree ñun comme man yàlla moom ma sutura si nu ñeela ni ñu deewoon man noonu laa noonu laa waroon na dee xalaas ñuy jàpp ci yàlla toog ci réew mi yaakaar naa ko de di saay toog ci réew mi gën a set. Ah, dañuy toog sax fi ñu toog ngay toog ngay histoire yi di ñëw say nopp ngay dégg après suba nga dem. problème bi mooy xam nga sax réew mi boo fi toogee bu mettee ba nga dee fi say da nga xam nekk. dañ lay mhm. gis mais seen i mbokk xamuñu fu ñu féete. am ñoo xamante ne ci leer na ma ci rajo bi la ñuy yëgee ne seen mbokk sàngam. Mhm. faatu na. Mhm. dañuy toog ci réew mi. kër bu ki neexul waaye fa la dëkk. Ndiaye. Hmm? Maguette Wade mi bu ñu ko dimbalewul du baax. dafa réeral pochette am bu morom fële ca station buntu Pikine pièce am yëpp ci la nekk nag carte bancaire carte d'identité carte professionnelle passeport ku ko gis na nga woote ci 77 874 54 22. Maguette Maguette Wade Maguette Wade waaw. sama mos ma. Maguette Wade numéro jigéen la xam na 77 874 54 22. mu ngi ko réeral ca eh, station buntu Pikine. <laughs> ah sama a ji la. ah ma ngoog. moo réer la waaw. Ndiaye yéen seen waa kër da ngeen sànni rek kii ñoo bokk Ndiaye moom la kay wala wala nga woote ci 77 150 17 17 mooy numéro xalaas. yéen Ndiaye yéen seen waa kër lu tax ngeen réer rek. màgget la de di te amoon na xaalis bëri na tamit. li ma ci tiital sax mooy. te xam naa ne boo demee dëkk lu nëbb seen waa kër. <laughs> xanaa Baye Fall kii Jurbel la dëkk. <laughs>